yow barki démb jaay ñëw ma fii waxtaan ak yow nii la dinaa dem ci laay waxtaan ak moom ba ma demee ci oblaay wallaay lan ma wax rus naa ci sax jaaraat yaa mun a kàcc yow lii mooy alalu àdduna waaye monsieur Guèye ñun dangaa war a xam ne ñun suñu marto dafa diis te ñun fu ñu dóor day dal ah seen marto ngeen yor nga ma wax mhm. ma ne marto boobu di ngeen ko dóor faneen fu dul fii dégg nga li ma la sama buntu kër wala sama koñ bu ma la sëf séenee je te tuer leer na di fet nga say fen sos nga say sos pas de bàyyi woon naa mu jàll mais bii dootul ñaar ok. tey jii sa yaay bu la indiwul doo mel ni nga mel wala di tal jàng bay ah di di ci jot say diplôme nii ba toog di ma ko waxee liggéey. sarax nga ko war a def xam nga yow jàmm bi. am na lu may dégg ni nga koy dox ci kër gi muy sëy bi ngeen bi ngeen di waaj a sama góor gi. déglu ma nag. dama lay wax lan nga laa dama lay wax nga sa ndax yow parce que man kuy am double visage man mënuma def ak moom en plus tuuti nee bu ndaw foofu dugg génn ci. bu fekkee bëgg am doom moo tax ngay sacrifier doomu jàpp di nga xam ne mën nga fi fekk dina génn fii amul yooyu. ñaata jaay tax or ñoo am ci dëkk bi nga ñëw gis lii di ma attaqué. ok yaa mille ok yaa mille jaaykatu or mais yaa une seule personne jaaykatu faux or c'est toi. gis nga bële dama la suturaaloon mais yow xamoo sa bopp ndekete gis nga bii dama koy réglé man ak say mbokk. am ko sa papa indi ko sa yaay sa famille yëpp ñu ngi foofu naka li doon déroulé ci kër gi yëpp nga ma koy nëbb muy problème mu bi ak mimi bi ba justice dugal ci loxoom nakate sam papa moo nekk ci ginnaaw. léegi yow mën nga liggéey. liggéey ba moo la des léegi. mais yow kan lay wax non mais kan lay waxal ko du leew. léegi amoo accès si man. ngeen jaar ci mati jaar ci sama mbindaan di dugal ay gàll ak sama biir